aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaaniirahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa laddaalin salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy faral di topp fii ci sunu chaîne YouTube abonné ci chaîne bi incha allah notification bu ñu am rek ngeen jot ci tey dañ leen indi loon ay alquran bu am solo wa is qaalat almalaikatu ya maryamu inna allah astafeeki wa wa astafeeki ala nisaai alamin boo ko xoolee nag ma nga nekk ci suratu yi tax ñu bindal leen ko mu gën a leer nii maasal leen ko mbind mi sax laajut maas waaye nag dañ leen ko bindal rek ngir leeral leen ko su ko defee mbokk yi képp koo xam ne dangay bañ a faatoo àll maanaam comme jamonoy mbas mi nga tukki faatoo àll wala bu dul mbas sax dangay bind aay bi ba ci miimuk aalamiina gi su ko defee nga dugal ci sa tur nga def ko téere bu ndaw nga takk ko su fekkee ne daf laa fekk nga nekk bitim réew te mënoo ko def mën ngaa wootelu ci sa dëkk ba nga xam ne mooy sa dëkkul cosaan ñu bindal la ko def ci sa tur fexe ba denc ko fi ngay daan denc sa yére wala takk ko ci néeg bi nga daan fanaan incha allah rabbi képp ku ko def ci barke aaya alquran bi yàlla mën na laa dimbali ba doo faatoo àll mukk incha allah rabbi ki leen ko leen baaxee seen mbokk seen xarit Serigne Malick Gueye Kër Mbaye Fall jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah